li sadinatan bi kullil wa barakaatu mbokk yi tedd yi ànd ak ñun ci jitaay yu mag yi ñoo dellu siwaat di ko wéer muy académie minal baay xadim leen ulumi islamiya ci kilifteefu a cheikh mouhamadul muntaqa hafidahullah waraa ak ci taxawaayu sëriñ mouhamadou abdoulahi mbàkke al imam sëriñ cheikh xadim mbàkke sëriñ muntaqa ak sëriñ muntaqa mbàkke mamoor mi mu ak mboolee membre académie kon xam naa euh, fi mu nekk dañuy jox sëñ abo euh, kebe moom mooy feggoo tey ak sëriñ mbàkke abdourahman di ku ñu xam ci tomb boo xam ne jox nañ ko ko mu nar koo traité ak yéen ñuy sàkku rek ñu teewlu ndax tomb bu actualité la bu am solo la boo xam ne it warees na ko jàngat bu baax a baax ndax askan wu nekk bu euh, buñ dee euh, bu leen mbir boolee ñu cay dund lu nekk biir mbir mooma dañ koo war di topp di ko leeral ba lënt du ci am xel yi du gëlëm bay ñàkk xam fu mu jëm kon sëñ Abo ma bàyyi la nga ànd ak sa gan ci thème bi nga xam ni nar na koo traité di ndokkee leen baax a baax ci koor bu tedd gi ñu nekk tey tomb bi ñu leen jëlal ànd ko akaadimiyatu min al baaxi qadim mooy taxawa daawaat al munxarifa wa aathaariha wa aatharuha muy woote yi nga xame ne dafay wóor njàngaleem sëriñ bi woote yi dugg ci njàngaleem sëriñ bi te bokku xam ne am ruur la ak loolu li mu mën a yàq ci pas-pasu nit ki li mu mën a yàq ci dundiinu nit ki ci société bi di mën a yàq ci jikkoy nit ki di mën a yàq ci àndu nit ki di mën a yàq ci dundu mbooloo mi kon tomb bu ama am am solo ndax woote yi ñoo jëmm yi ñoo yam woote lii dal nit bu juddoo day juddu màgg euh, dem ba bu amee lu ko sàmm mu wëy di dund bu amut lu ko sàmm mën naa caay doxee sax raaf kon day faatu gëm-gëm boo gisit muy tariixa muy diine boo amul lu ko aar lii dal nit ci juddu xëy suba faatu da koy dal kon pas-pas yi ñoo jëm yi ñoo dañuy tawat dañuy dañuy dañuy wopp di wér di ami jafe-jafe kon moo tax mu jar lool képp ku bokk ci ab gëm-gëm wala pas-pas wala diine nga fexe ba lu koy dundal ak lu koy sàmm ñor la yitteel la waaye lépp lu koy lor wala lu koy rey lu koy yàq ngay fexe ba loolu du jàmm te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bàyyiloo nañu xel loolu bu baax a baax ci ñu moytu ay bidaa bidaa mooy yoo xamee ne ay virus wala ay microbe wala ay tawat yoo xamee ne day dal diine yi di doon lu bees lu cay am te ni virus di def yaram lu ndaw lay doon buy juddu waaye bu ca toogee tuuti dana màgg ba mujj ëpp doole yaram wa te bu yàggee na ko faagaagal yaram wa far euh, jaare ca sànku kon yonent saa bu ñuy moytuloo biddaa loolu rek lañ jubloon bañ ñu ci ñuy bàyyi ñu ñu bañ a bàyyi xel loolu di gaar pas-pas yi te man koo faagal looloo taxoon comme ni nga xamee nag waxtu ne daa am lu luy bëgg yàq pas-pas yi am na waxtu wu ne it yuy taxaw di aar pas-pas yi comme ni nga xamee ne yàlla ni ñu bindee sunu yaram it waxtu wu ne am na lu koy aar muy ay anticorps pas-pas yi yàlla defar na pas-pas bu ne ci diine ju ne dana am ñu mu ñoo xamee ne dana leen jaral lu ne ci jaay seen bakkan jaay seen lépp ngir aar diine ji yon san salam junju na ko ne laa yazaalu taa'ifatu min ummati ila axiri eh, waxtu ne dana am ci ñu nekk ci sama diine ji di aar diine ji mu jaral leen lu ne dara du leen lor du leen lor eh, jaral na leen ko ngir rek diine dund eh, kon loolu di dal diine yi di dal jëmm yi loolu moom dafa matale fépp moo xam yoonu murit munu cee mucc lislaam munu cee mujj beneen pas-pas munu cee mucc euh, rawatina nag yoonu murit mi nga xamee ne moom doonul lu dul yeesalaat woote bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ Tuubaa xam ne moo ko doon yeesali doon ki doon du yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci zaahir baatin donn goo xamee ne lépp lu amoon fee it nañ waaj te xam ne lu lu lu lu muxtamal lu lu lu manu la mu mu mu mu ñëw ci ñun ndax yoon yoonu murit bi mu juddoo rek ba suñ joone yàlla tey dañul di jànkonteeg ay gàllankoor ak yi noon yu taxaw ci kanamam bëgg ko fee simpi bëgg fee jële noon yi nag seytaane ci jiitu noon yi am na manes na ne noonu biir ak noonu biti noonu biti bi moom leer na ndax euh, muy tubaab bi sëñ tubaab waxoon na ne ñag bi ñag naa ko dara mënu koo yàq kon tubaab bi koo xamee ne waxuma la pas-pas bi waaye jëm sëriñ bi jëmbam la fi bëggoon a jëlee euh, doon ku ñemmeerlu jàmmaarloog sëñ bi génne ko réew mi def ko lu ne pour bëgg ko fee faagaagal mënu ko kooku xam ko te moytu ko yomb na waaye li Cheikh Ibrahima Fall waxoon mooy ne ñag bi la koy la koy ruur du jóge ca biti ci biir ñag bi la nekk loolu moo métti loolu moo daloon yonente bi alayhi salaam moo daloon lislaam ca Madina mooy lislaam ba muy nekk Màkka dañ ko doon sonal mu nekk ca biir mu ay noon wër ko mu xam leen mu ñëw ba Madina am fa doole ñagu far ci biir ñag bi nag am ko koy ruur ci biir te mooy almunafiquun moo tax li Cheikh Ibra Fall waxoon am foofu metti te jafe munafiquun yooyu nag noonu mu amee woon ci daawal islamiya noonu lay feeñewaat rek ci ku doon yon chance la bi fokk dana am ay munafiquun ñoo xamee ne seen bakkan moo leen yitteel seeni bànneex moo leen yitteel seen dara yi diine ñuy teelu leen kon it ñoom lay dundal loola rek ca la ñuy dox moo tax nag na ñooñee amee seen fulla ba war a taxawal seen caaxaan yooyee bëgg amal ndey ci biir yoonu sëriñ Tuubaa bi ñii sëriñ jubaa tànnit wali xaada ahbaban bihim uzhiru nuska yàlla wutal na ma ay tànneef yoo xamee ne ñooy samay soppe waxtu wu ne ñoo may feeñalal lu baax li war a am ci sama yoon yàlla ñu ci yàlla boole ñu bari sëriñ Tuubaa kon nañ ñooñu it ñoo war a fexe ba na ñee laa yazaalu taifatun min ummati ñoom it ñu fexe ba lii lépp lu nar a gaar njàngaleem Sëriñ Tuubaa lépp lu ci bokkut ñu doon anticorps yi xeex ko ba du fi ba loolu du mën a faagaakal yoon wi kon bidaa ak nifaaq ak yooyu nga xamee ne day am ay masaadiq mutaaddida day ay ashkaal mutanawia lislaam ak nifaaq ni ñuy xeexe form yi day wuute tey mën naa sol mbubb mii ëllëg mu sol meen mbubb waaye noonu biir bi moom noonu biir bi la rek ba tey it yoonu murit ñi koy yàq ci biir it daanaka munaafiqoon yi nekkoon Madina ñu meloon rek lañ melaat mbubb mi mooy soppiku rek ak couleur yi waaye dara soppiku ji moo tax ñu ànd ceeg boroom xam-xam bu mag bu ràññiku ci dëkk bi ñépp xam ko muy sëñ Mbàkke Abdourahmane mii feg fekkoon incha allah dana ñëw ànd defal ñu ci am njàngat leeralal ñu bala ñoo mën a xam lan moo ruur njàngaleem Sëriñ Tuubaa mënoo xam li ko ruur te xamoo jëmmi njàngale bi mooy la kan lan mooy njàngaleem sëriñ bi lan mooy jës cëslaay lan moo ko tax a jóg fan la jëmee mbindéef yi ilallaahi bil quraani wa sunnati allati hadat nii saraftul kulla wal qalbu xaashiun lan mooy ay mabaadir lan mooy ay haaya ay ahdaafam lan mooy ay gaayaatam fan la jëmee nit ñi yan yoon la leen di jaarale loolu boo ko xamut ëllëg ku la indi ci beneen jubluwaay bu bokkut sëñ bi nga nga nga nga fekk si ko te fekk woowu la ca fa la sëñ bi woote bu la jaaralee ci yoon wu bokkut ak wi sëñ bi jaarale nga topp ko ca te fekk bokkuñu kon da war a xam lan la la sëñ bi woo yaakaar naa sëñ Lamine Diop Dagana leeral na ko bu baax a baax ci njëlbeenug irwaaw nadim lan la sëñ bi woo taalibe yi mu leeral ko baat par baat ihsaan loolu yàpp naa képp ku jàng irwaaw nadim bi sa ko loolu nag jàpp naa ne mooy mission képp mooy warteeku képp ku dondu mag ñooñu ci war a aar yoon war a jàngale kon sëriñ Mbàkke dinañu leeral dëgg-dëggi woo def sëñ bi mooy lan lan la ñu woo ci yan lañu yan yoon la ñu jaarale ba ëllëg képp ku ñu woo ci lu dul loolu wala mu bëgg ñu ñu mën ko moytu bu loolu jàllee ñeneen ñi ñëw nag ruur yoon wi bëgg fee indi meneen njàngale bu sëñ Tuubaa jàngale wu sëñ Tuubaa di ñu woo ci yàlla ñu ñuy woo ci seen bakkan wala ñuy woo ci àdduna wala ñuy woo ci leneen lu bokkut ak yonente bara lu baax ñu mën ne xam ne lii kat jëmul kër sëñ Tuubaa bu ñu indilee aw yoon ne lii mooy yoon wi lii lii kuy indi ñu weneen yoon yoonu zikkar yoonu xidma yoonu ilm yoonu amal yoonu adabul mardi ñu ñuy indil weneen yoon wu bokkut nga xam ne kat lii daawa cheytaaniya na ko suñu baa waxoon mu ñagee naa ko alxuraan ak sunna ku toog ca biti ñag ba di leen woo di leen ci loolu yàlla ak yonte bi xam leen ne seytaan leen te ko kon xamee ne kon ñag bi leer na woote bi leer na ahdaaf leer na ku ñuy woo ci leneen lan la ñu mën koo moytu kon sëriñ bi gannaaw bi ñu leeral lan mooy njàngale bi ñeneen ñiy wootee li ñuy woo lan la ci yan méthode la ñuy wootee ak yooyu yëpp loolu jar naa bu loolu jàllee tomb bu mujj bi muy ñetti tomb bu mujj bi mooy jeexiti ñi fi indi di ruur jàngaleem sëriñ bi ñooñu bu seen pexe sottee lan la war a yàq ci woote yonente bi alayhi salaatu wasalaam li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal